jàmm la. mais man damay bëgg a jom yi wala damay bëgg a waaru. lan lu xew. li xew kay mënu ma see jaaraat. li ñaaw na ci doomu réewu Sénégal. wante dinaa ko yëgal ñu ko yëgul ndaxte kenn wérantewul na yonent bi moom mooy gën di mbindéef. li nga wax mooy dëgg. te léegi nit ñi dañoo bëgg a jël yonent bi rek def ko morom. waaw loolu jaaxal na ma. naan ay yonent lañ te xamuñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa war na képp ku si wax mu ànd ci yar ak teggin. ba dégg xam ne yow mi ko am yar nga ci jëmmi rasulullah. ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo suñuy baay. man xanaa yow la gën ndey ak baay. mu ni. man xanaa yow la gën ndey ak baay. din waay père. man sama ndey ak sama baay ñoo gën ñoo gën ndey ak baay yonent bi. nga teg ko fan. parce que man sama ndey ak sama baay ci lislaam lu judd ndeyam ak baayam judd buñ deewuñ ci lislaam. man daal je suis peur là. waaye din waay teggi nañ say wax ci waajur yonent bi. ñun suñu yoon daal ci ndey baayam ak ak ak ndey ak baay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ni. ñun suñu yoon daal ci ndey baayam ak ak ak ndey ak baay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moustapha Diakhaté mii lu muy wax nii. waaw Diakhaté ñoo gën ñoo gën ndey ak bàyyi yonent bi. Eh, astafurlah. dëgg dëgg am naa lu ma metti nag. yow xam na ne li nga wax boo dendoon ak man barke Serigne Fall Mbacke ma jaale sama bakk. man de bu ma rusutoon ñu may seetaan. dinaa la teggal saaga boo xam ne ba nga juddubalee bu soo gis. ndaxte genre mag yi rek moo tax yàlla dañu mbugal. Ah, parce que ay mag yu réew la am. dañuy wax ba xoj bopp. di laajte ndax dañoo cravate wala simisu àllaaji lañ sol. onze mille cinq cent ndaxte amuñu benn njariñ ci société bi dañuy xëy suba ngoon di fen pour dund te bu ko leeree ne kenn rafetluwul kàddoom tàngal nga xol yëpp tàngal nga xol yëpp moo tax ñëpp a ngi naqarlu kàddu yu moom suñu naqar gi ñu am dinañ ko faj ci zaahir ndaxte am na jëf yoo xam ne ku koy def rek di doon ay mbaam si dëkk bi sax moo ko gën waa problème mu jàmbur nga ciy wax loo la mag mu réew la mu li ma si gën a métti nag mu naan xamuñu ndayam ak baayam. yow lañ xamul sa ndey ak sa baay. teg si mu naan soxla wuñ xam waajur yeneen bi yow yaay ko bon ki nga xam ni bëgguñoo xam sa ndey bëgguñoo xam sa baay. waa kii est-ce que Moustapha lañ ko war a woowee sax. kooku waruñ ko woowee sa Moustapha ndax seytaane jaxate laa bëgg a wax. kon boog seytaane jaxate. yaa bon. seytaane jaxate. yaa yées. seytaane jaxate. yaa xaram. seytaane jaxate. barke Serigne a wax yaa topp ci plateau yi ya, rek. ba far gëm ba far gëm seeni fen. man daal je suis peur là. man sama ndey sama baay ñoo gën ñoo gën ndey ak baay yonent bi. Eh! astafurlah. neexul ba neexul nag mais waa kii wax di rëy na. ana ki ko wax. lii est-ce que nit dana ko wax dëgg-dëgg laay wax sax. moo ma jaaxal. Ya. waa ñun tey ñoo dajaloo amitié. amitié dafa xam. kon fan la ñuy nañu jéem a daje jëm ñaajo. non jëm ñaajo doxul ndax dañoo nekk ci projet. wala ñu jéem a daje ca jas ku ne foo mën a taxaw nga taxaw fa di yuuxu. ndaxte genre kaddu yi rek moo tax yàlla dañuy teg natt. yàlla moom buy mbugal. du yem ci ko tooñ rek. ñun ñëpp la ciy boole. ndaxte ñëpp a ngi musu ci gone bu ñàkk yar. waaw moom mu ñàkk ay teggin day delloo réew ginnaaw. lii buñ ko mënee dindi ci réew mi nañ ko dindi. man mu ne léegi soo sa koppa di saxub sikkim di woote na yow jullit nga wëlbatiku waat di critiqué waajur yeneen bi war ngaa xoolaat sa bopp yàlla ñu yàlla jégal rek. asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa mbaa yéen loolu ngeen wax. ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. bu ko defee suñu maam mën naa def ñam. wasamsi wasaba. amiin. wal xamari zaaka.